ñu ngi dellu ziar bu baax ñu ngi si jàmm alhamdulilah ñaari kan. nga xamante ne euh, situation bi nekk fii nii doy na waar ah, doy na waar. ñun kay ñoo ko gisandoo. wax dëgg yàlla gent bi Macky Sall war naa xool ne ñun ndax ñun ñun ñi fi nekk ñëpp kenn dëkk fi ñun ñëpp dëkk ba lan jóge ñëw liggéey daan suñu doole te Macky Sall foog waa dëkk bi ñoo fal. bu doon Dakar Dakar rek du falu waa dëkk ba dong ñoo ko fal mu ñëw toog tey jii mais koo wax dëkk ba ñu ne la xamuñu ku dul Macky Sall dégg kon moom waroon naa xool tey jii moom nee na dafa bëgg Marème Faye Sall ah mu mu def ni Marème Faye Sall bëgg nu comme ni mu bëggee Marème Faye Sall ndax Marème Faye Sall bañ na ko ba dañ ne moom mooy dimbali jigéen ñi kon na xool foofu mu jàppale na ñun ñun danoo ñëw liggéey si sàccu nu fenn nu njaaloo wu nu ku nekk dangaa ñëw liggéey si loo yóbbu say njaboot dégg nga lii mu def nag mooy nan nit ñi dem di agressé ji ak a sàcc ak a jël alal ñu lay toroxal si mbedd mi kon nag ñun nanu dimbali ngir yàlla ngent bi ñun nin ko jàppale ba mu toog nan nu ko jàppalee ñun ñu liggéey jàppale suñuy njaboot loolu rek la ñu bëgg ma ne Macky Sall dimbali ñu jëm ci seen bagage yi fi mu toll ni mënu leen si jot bagage dara lan jotu ko boo duggee ñu doo jël dama li ma metti dan naa doo jël di bàyyi ñuy dugg di jël sa alal wala ku jógee foo xam ne dëkku fi sax ñëw dugg naan alal yëpp jël nañ ko xaalis xaalis xaalis bi laa la wax mu ngi jibee ñu jël waaw ñoom ñooy sàcc ñoom policiers yi ñoom ñoo ànd ak ñoom ñoo ànd ñoom di leen dil ndax xam nga ne boo ne joxeel 2000 nga doog a dugg loolu sàcc la loolu sàcc la boo nga dugg kon kay sàcc la dégg nga ñun nag danoo sonn Macky Sall mënuñu koo fal mu nuy toroxal nanu may jàmm ak salaam dégg ñun ñëpp moom lañu voteel suñu carte ñun ñëpp moom lañu ko jox ñun ñëpp moom lañu voteel kon nag bu nu am dañuy jàppale bu nu ñu jàppale ko mu jàppale na ñun néew di ñoo ko jàppale nanu dimbali dafa ñaar ñaar depuis kañ yaa ngi asalaamaaleykum waa bi dakaar yëpp maa ngi di nuy di leen sant di leen garab bu baax ndax man mi fii laa juddoo fii laa yaroon maa ngi tudd Salimata ngi sant Diaw ay dëkk Kolda gii. mais fii laa juddoo fii laa yaroon fii laa magee man li ma mës a gis xaw na maa jaaxal. xaw na maa jaaxal trop damaa jommi xamatuma si fan laa nekk xamatuma si suuf laa nekk xamatuma si si kaw laa nekk xamatuma fan laa nekk ndax li ma gis musuma ko fi gis musuma ko fi déglu musuma fi dégg ñu koy nettali jàng naa fii. def naa fi lu nekk fii laa juddoo fii laa fekk samay waajur fekk fii samay maam mais li ma fi gis musuma fi gis ndax ñun fii ci cité bi dañu naan cité bi cité imbécile cité imbécile moom lañ ko tuddee loolu ñaawal tuur bi la man loolu laa gis. Ah, presque ma may commencé fi ñëw ak léegi mbët na huit ans may ñëw di dem mais man kenn musuma fi agressé kenn musuma fi sàcc. kenn musuma fi def dara fii police Sénégal yëpp dañuy dugg fii du guddi du béjjat du ngoon ñoom bu ñu ñëwee fii ñoom si boppam bu ñu ñëwee di liggéey dañuy sàccaale dañ lay jàpp duñ la jàppee ak preuve ñu jàpp fayeegu la ñu bàyyi la ñu jàpp ñu sa waaw ñu ñu jàpp la ñu jàppee la ak preuve ñu fayeegu la xaalis ñu bàyyi la comprendre li ma lay wax ba ñu dajee lii mais lii ñaaw na métti na dañoo waroon a may délai doomu jullit damay ñëw ci loolu parce que euh, bu ñu xoolee jàpp naa ne man damaa fogoon ni jox nañ leen dele respecté wu leen ko moo tax ñu ñëw dal seen kaw nii nii mais bi ma déggee quelques persone ñu ma laaj dañ ma ne kenn amu ci joxuñu leen. borom xam na ni yàlla suñu borom yàlla kese laay waxal jafe-jafe taxul may wax yaa ngi dégg man may xool ñi fi dëkk ñi fi gën a soli ñoo ngi fii man su ma fayee junne ak ñaar téeméer ma dem ñibbi mais am na ñu fi fayee de dañuy ñibbi. mais ñu am na ñoo amante ni fi ñu dëkk moo gën a sori suñu dëkk boo amul cinquante mille soixante mille doo dem dëgg la wala dëgg mais ñun ñu fi dëkk man li ma gis fii waxuñu kenn kaa jël sa bagage waxuñu kenn jour tel dañuy tëj cité bi musuñu ko fi wax musuñu ko fi dégg musuñu ko fi yéeg yaa ngi dégg bañ ba ñu ñëwee quatre heures du matin la ñu dugal fii attaque cité bi yëpp amul fenn fooy jaar fenn fenn fenn fooy jaar doo ko am fenn fooy jaar nga gis sa bët. waaye dégg ñu naan euh, ñu bari ñu ngi fële nga xamante ne mooy arène nationale. waaw am na ñu fa am na ñu fa fii sac bi sax sac bi boo gisee mu génn fii fanaanu fii fanaanul fii sac bi fanaanul fii man ba ma tuxoo fii ak léegi mbat na at mais sama rak bu jigéen bi moom ak jëkkëram ñu ngi fii sama mag ak jëkkëram ay doomam ñoom ñëpp ñu ngi fii wi man sac bi boo ko génnee xaalis moo si nekk ngay wax ak samay kayit ñu ne la tegal moomoo ko sa biir néeg lañ lay yee ñu taxaw ba nga yeew doo sul mu ñu nga sol yére ñeneen yi sarbet lañ génnee ci biir cité bi tey moom lañ. ñaaw na déggoo ma de lu ñaaw lu bopp loolu tey laa ko mës a gis si senegaal ba pare sac bi doo ko génnee xaalis boutique yi benn sàcc sàcc si boutique bi ñoom ñoom policiers ñoom si boppam dañoo ñëw maasale fii si ginnaaw ba pare daj porte boutique yi jël xaalis yi seen oto duy gaz yi foofu duy suukar si duy bagage si boutique yi ba mu jeex tak lu si des nag ñu jël ko tobal ko mélangé ko topp ci sot dañuy gis ku duñu dajji folisam ñu xool yére yére olof yoo xam ne ñëwloo ko defloo ko dara ñu dugal ko si saako teg ci seen oto police bi su des ñu topp ko. waxuñu leen ni ngeen jël si seen bagage fenn wala. dara instant nii yëpp mëgg na ñu ngi koy tool yi di ko def si oto mbalit yi di ko yóbbu mbëbës dara dara dara desul kii sa kii yére bu mu solee nii moom la génnee si biir cité bi ku gën a ndaw fii kuus kese wala yere bi mu génnee nii moom la gën a génne système bi barki Seydina Mohamed kenn amu fi dara kenn jotu fi dara ba pare xaaju guddi ñu toog fii police yi toog fii nii xale góor yi di leen fay fayeeku fayeeku xaalis dugg si biir jalaatulu si des yóbbu kenn jotul dara ñun ñi nga xamante ni ñoo fi nekk jigéen ay handicapé ñoo am ne seen bët yi baaxul ñoom ñëpp kenn jotu si dara dara dara dara dara dara am ñoo xam ne dëkkuñu fii kenn doon na ñoo yàqal sonal ñu ñi ñàkk seen kayitu kër lépp mu ngi fii ñi nag seen kay di juddu xale yi fii ñëpp aselem la ñuy jàngee ñii ñu ngi jàngee Grand Dakar élèves yi suñu élèves yi yëpp yàq nañ fii léegi fu tool nii xalaatuñu amuñu fu ñuy dem fii la ñuy jàngee fii la ñuy defee léegi fan la ñu dem suñu waajur fan la ñuy dem ñun dañoo ñun Macky Sall dañoo woon ñun bokkuñu si Sénégal. ngeen bokk loolu la ñun bokk moom kese moo xam Guinée lañ bokk wala Sarlo wala feneen bokkuñu Sénégal man maa ngi ni fii laa juddoo fii laa yar ma sama papa MDL 2019 la gaañu Kolda maa ngi ni sama carte d'identité yor yaa may dégg maa ngi ni si sama carte d'identité laa dégg yaa ngi dégg sama papa MD Sénégal la waaye man li ma gis si Sénégal fii tey Sénégal gi tey bu ko doon noonu bu ñu bu ma mënoo changer sama sama sama kii la nga sama nationalité dama koy changer man tey man tey dama doyal sak dama doya sëg dafa doy waar dafa ñaaw dafa saate barke Macky Sall konte ñu si ñii ñi konte ñu ñun ay doomam lañu konte ñu ñun ay jabotam lañu waaye lu mu def yàlla nañu yàlla àtte ak moom si xool bu sedd guy wasalaam. jeudi si ngoon laa fi jóge fii laa añee defar samay bagages borom kër gi ñëw laaj ma luyaas ma ne ko yoruma luyaas damay dem ki mee bu ma ñibbi ñibbisee naa la fay luyaas néeg yi ñuy dendal fay luyaas ma jox la ñooñu seen luyaas barke borom Touba Mbacke yëguñu ñun mosuñu ko xam. waa ñoom xam nañ ko xëy na waaye ñun mosuñu ko xam man mii di wax ak yow direct man sama rak chef de quartier bi mosuñu wax. waaw ñun mosuñu wax waa ñun mosuñu wax mais ñun ñu loolu ñun mënuñu si wax parce que ñun bi ñuy dem dañoo bàyyi chef de quartier fii mënuñu débat foofu waaw billaahi wallaahi léegi yow amoon nga fi man amoon naa fi ay bagages man mii di wax ak yow ma naa fi ay matelas rasoon am naa fi gaz am naa fi ventilateur am naa fi restaurant bu yore ay bagages man restaurant si buntu bi man Adama Diouf maa ko moom. te lépp yàq nañ te lépp gisuma ko. lii laay sol lii ma solo jàkkaarloog yow. taxawal ñu ñu ne am na ñoo xamante ne dañ doon jël li nga xamante ne moom mooy seen bagage. di wàccee fii démb si guddi ko man mii ma fanaan fii ni mu demee mooy police yi ñu ngi monte ñoom. fee la ñu mënta si suuf bàyyi leen ñoom ñuy yéegal bagage yi di wàcce xale yu góor yu di dugal biir HLM bagage yi xale yu góor yu bëri yu dajji bitig dañ leen wàcce fii biir HLM waaw man laaj leen ma loolu maa taxaw fii si kanam police ba 5 heures du matin si fajar 5 heures du matin si fajar loolu man maa la ko mën a wax 6 heures 7 heures laa fii te ñoom boobu ñu ngi monte fii kon ñoom dañu jël li am importance après ñu bàyyi ñu bàyyi ñi dañu jël li am importance ñu bàyyi la ñoom ñu dugg parce que noonu laa ko gisee police yi fii la ñu monté xale yu yi di yéegal bagage yi loolu nan la demee noonu suñu sama restaurant moo nekk si buntu bi samay bagage samay matériel aw ma fi na xaalis bu fekkee yàlla dëgg la la bëgg bàyyiwu ma fi 100 francs 100 francs bàyyiwu ma fi ay matériel mais bàyyi naa fi sama matériel may liggéeyee bàyyi fi sama néeg mu ngi nii ma jàkkaarloo loolu fan lañ ko teg bu fekkee Macky Sall daf ñuy génne na ñëw nañ génn leen. jox leen délai génne suñu parce que ñu fi fii dañ fi doon liggéey dëkkuñu fi dañ fi doon liggéey. jërëjëf. gis nga. maa ngi si jàmm. maa ngi si man jigéen policier sax moom ma fëgg. bu ma fëggee ma ne ko lu xew mu ne ma génne leen. ma bëgg a dugg mu na ma doo dug ma bëgg a dugg mu ne ma doo dugg. te ñu nga maa ngi yóbbu wàcc xaalis jàmbur foofu suñu natt bi ñeent fukki junni jour boobu laa jël ñeent fukki junni boobu sama yére yëpp ñu ngi foofu. sëlëm sax defuma ko sama identité yëpp mi ngi foofu fu ma nekk ne sama lépp ñu ngi foofu sakk yàpp ñu ngi nii kenn mënu rek suñu bagage dara lañ mun ko man sama olof bi nag soriwul Casamance laa dëkk liggéey moo ma ànd fii sama olof bi soriwul gis nga fu ma nekk nii noonu laa mel fu ma nekk nii noonu laa mel maanaam say bagage yi yëpp yàq yëpp yëpp foofu la këpp yëpp foofu la këpp gis nga foofu la ñu këppee nii ñun mënuñu dugg ñun ne ñu te ñu ngi xeex foofu si suñu kaw bagage yi mënuñu jot dara dara la ñu mën a jot sama olof bi soriwul loolu moo tax ma ruus nii man foofu laa mën a yem foofu laa mën a yem ata jàmbur maa ngi koy xalaat billaahi maa ngi koy xalaat waaw maa ngi koy xalaat bagage yëpp ñu ngi foofu ak nata jàmbur fu ma nekk nii noonu laa yeme démb si biti la ñu fanaan si biti la ñu fanaan ak taw bi si la ñu fanaa foofu si kër fii foofu la ñu fanaa foofu la ñu fanaan sama olo bi sorul Casamance laa jógee liggéey moo ma toog fii billaahi foofu laa mën a yem yëpp mi ngi foofu fu ma nekk nii yëpp foofu la nekk sama dentité bi yëpp foofu la nekk maa ngi tudd Fatmata Darame waaw Fatmata Darame laa tudd ça va alhamdulilah yaa ngi si jàmm sant yàlla ñu fekk leen euh, fii nii nga xamante ne nit ñëpp bëri nañ fii lan mooy coow li ak lu waral ba gars yi génne leen fii. waaw li waral coow bi moom ñun moom yëguñu ko. quatre heures du matin gars yi lay ñëw si biir place yi ak si biir néeg yi fugg ñu quatre heures du matin la ñu fugg yee la saay bu ñu yeewoo ñu ne la jëlal sa dàll solo sa yëre nga génn. noonu la ñu génnee si biir koñ bi. léegi euh, bi ngeen leen di génnee nee na leen ngeen jël seen bagage wala. non bu ñuy génn ñoom kenn waxul boo jëlee bagage sio bu ndaw soo jëlee sio même sio bu ndaw bu un kilo leen ne tegal benn bagage du dem loolu la ñu def amul kenn ku génnee xaalisam si biir koñ bi wala yére bu muy sol wala leneen ñeneen tànku nañ lañ génnee si biir koñ bi ñun nag yëguñu woon ne lii day am bu ñu yëgaloon lii day am. ñun duñ toog seetaan suñu alal di yàqoo ni ñu koy tas tasaaroo nii. joxuñu leen délai. joxuñu benn dele dégguñu ko si ñoom. amul benn xibaar buñ dégg ne ñun dañuy ñëw fii nii toj fii ñun dañ leen dañ leen ñaan dañ leen ñaanoon bàyyi leen ñu jël suñ moomeel ñu yóbbu ñu ànd ak moom luñ moom ñu bañ ñu ne lii kenn du génnee fii dara amul dara luñ génnee lu dul sa bakkan ku nekk ak doomam ak bakkanam la génne lu dul loolu dara génnu si biir koñ bi. bu ñëwaatee nag dañoo jàpp yóbbu ñu ba stade arena national ñu téye ñu foofu. ba lekkuñu naanuñu. ñaata heure lañ leen fa téye. quatre ba treize heures. quatorze heures ñu ngi foofu. ba léegi am na ñu fa des am na ay xale saa yu yoo xamante ne ay mineurs lañ amaguñ sax dix huit ans ñu ngi leen téye foofu ba léegi ba heure bii nii may wax yow ñu ngi dëggante ak ñoom téléphone ñu ngi naan lekkuñu naanuñu ba léegi bàyyi ñu leen te ñun ñii ñu bàyyi ñëw fii nii si biir terrain bi. amul kenn kuñ bàyyi fii nii ñu ne dugg jël sa bagage amul benn bagage buñ jël ñu ngi nii ñu ngi dugg si biir yàq bagage bi di defar yëpp ñoom ñi indi woon ñi tel teni bule yi ñi ñu àndal non gendarme yi am na ñu ñu àndal ñu bind sauver des vies ñooñu ñooy dugg si biir yi ñooñu ñooy dugg si biir néeg yi dugg jël loo xamante lii am na important ñu yab ko si camion yóbbu mais ñun gisuñu dara. amuñu leen fan ngeen di dem pour jot li nga xamante ne moom mooy seen ay bagage wala dara. ñun luñ dé ñun luñ dégg pour boo buggee jot sa bagage demal fu ñu sànni mbalit bi ñun loolu lañ dégg si fii nii si policier yi loolu la ñuy wax bagage bi yëpp foofu lañ leen tuur ñu ne képp ku jël soxla bagage am na dem fu ñu tuuree mbalit bi nga jël mbëbës mbëbës te ñun na mun ñu dem foofu seeti bagage bagage boo xamante ne kenn identifié ko kenn binnu si tur lii kii moo ko moom loolu kenn mënu xam ne lii mooy sa bagage même sàcc bu ñëwee mun na jël bagage jàmbur kenn kooku boromam du ko yëg te fii nii ay borom njaboot ñoo fi nekk ay borom responsabilité am na nag yoo xamante nekku ñu responsable mais la majorité ñi fi dëkk. la majeure partie ay responsable. la majorité partie ay responsable ñoo fi nekk. vraiment lii naqar nañu trop. léegi solution bi lan lay doon waxtaan ngeen ci ak maire bi wala wala cef de quartier wala dara. maire bi saa gisuñu ko buñ demee si maire bi dañoo ne maire bi dafa voyagé nekku fi ñun loolu lañ dégg. amul benn nit boo xamante ne waxtaan nañ am moom ku ñu mun a dalal xel lii ngeen di def wala lii ngeen di da ngeen di bind plainte wala da ngeen di def li amul kenn ku ñu ko wàllu yéen nag su ngeen ñu munee jàppale lépp lu ngeen si mun a jàppale si Jikko Taranga te yàlla tax ngeen jàppale bi yéeg si kaw. fa mun a yem ngeen jàppale ñu bu xeexuñu xuloowuñu amul kenn si ñun fii ku jël xeer sànni police wala leen ñun dañ leen ne jàppale leen ñun jot suñu alal luñ moom su ngeen suñ jotee luñ moom mun ngeen def après li ngeen seen liggéey ku nekk am na fu mu war a dem mais nag lii musuñu koo gis wax dëgg yàlla nakar ñu na fam nakar yem. baax na xaaral papa ji ma ma yow fii nga dëkkee. man fi laa dëkkee. def nga fi ñaata at. Euh, fii bi di xotti bitéer yi bi def na ñun ñoo ko fi doon jëmbat dégg nga jamono booba naar bi ko abaloon fii ñu daa fi liggéey ci naar bi dégg nga naar bi dafa dee ñu doom ju nekk fi ba nii fi nit ñi dëkkee booba ñun ñu ngi fi liggéey jamono yi suñu ba léegi agression bu mel nii mi ngi fi door a am Abdou Diouf ja suñu war jaar na fi Abdou Diouf jaar fi Abdoulaye Wade jaar fi dégg nga lii mosuñoo am musu fee am première mi ngi fi door am jël fi jàmbor ëpp la doole yow la léegi fi ñun ku nekk li nga li nga sol nga dese amul kenn koo xam ne kii waaye ma ne di lii àq la àq la te yàlla sunu borom bi gis na ko te it yàlla danañ na ko fajal bu soobee yàlla ak yéen itam isaare kilifa gi maa lay siyaar naa la siyaar lépp jàmm jàmm rek jàmm bi nekk fii nii doy na waar trop trop trop lan nga ma ci mën a wax nan la demee situation bi yéeme na parce que nun depuis 2007 ba léegi ñoo ngi fi maa ngi nii Touba laa jóge direct am naa fi kër sama waa kër danoo ñëw ne leen ñu luñ yoroon ci xaalis xam ngay étranger ñenn ñi ay guinéen lan ñenn ñi ay séréer lan fan seen kondaa yan na yan dencan ca néeg ba sax dañ la ubbil bunt bi nga ubbi ñu ne la tëjal nga tëj ñu ne laalee nga ne ma jël sama xaalis ñu ne doo jël dara li nga sol ngay sol nga dem nga nu nu dugal la ci oto yóbbu la stade yóbbu la stade jë euh, dara mayu nu la ko fi toroxal la nun nag ki waxal mooy ki jiite réew mi muy président bi Macky Sall mi moom réew mi lii lépp njabootam lan lii lépp njabootama te noo fii di torox te buñ toroxee ak njabootam la nanu def comme Amadou Sall nun danoo nekk fii boo gisee mbooloo mi bari fi mooy luyaas bi dafa yomb comme saaru xam nga ne luyaas dafa seer néeg koy laaj ñetti luyaas la lay laaj quarante mille ñetti weer te fii boo ñëwee am sa quinze mille wala sa mille dëkk fi mbindaan yeeg ñii daan doole ñëpp fi leen dëkk ay néew doole ay sàcc dëkkunu fi ay trian dëkku fi xoolal kanam yii xoolal kanam yii yëpp ay jàmbaar rek a fi nekk njiitu réew mi dimbalil nit ñi nit ñaa ngi bëgg a dee de. mais bëggoon naa xam ndax jox nañ leen délai wala joxuñu leen délai. amut man ci ñi man ci dëkk ci dirigeant yi laa Touba laa nekk te biñ demee ci sëñ euh, sëñ Mountakha direct la woo bi ne ko arrêté leen liggéey bi. mu ne ko de ay bande fi dëkk ma ne ko xool ma ba xam nun ay bandi lan war a déet nun Touba gii lan dëkk di fi liggéey di yóbbu foofa mu ne ko arrêté nan ko kon dan koy bale bale nu dara ndekete yàq nan ko toroxal nan ñi ñii ñëpp ay borom kër lan xoolal mbooloo min bàyyi Macky Sall xoolal sa bët ñi nekk sa ginnaaw xoolal yërëmal nit ñi sonn nan lool. xanaa bu déggee ak tey jii ni nga xamante ne nee na vingt dafay def discours xanaa dina ci artu xanaa. na ci wax nag parce que euh, mi ngi ne place yi mi ngi nekkan ñetti téeméeri place kër yi ñeenti téeméeri kër ak juróom-ñaar fukk moo nekkan ci cité bi. kon li fi dëkk dafa bari. néeg bu ne ay sept personnes. néeg bi ay quatre personnes cinq personnes six personnes ngir néew doole. ay néew doole fi dëkk du ay ay sàcc du ay fenkat ay liggéeykat a fi nekk parce que weer 15000 ya ñii ñëpp nga xool nit ak soxnaam la koy génne néegam nit ak soxnaam la ak i doomam kon mi ngi ñuy toroxal na dimbali nit ñi na dimbali sàcc yi nan sàcc nan alal jëpp nag. li fi nekk yëpp ñoo ko sàcc. li fi nekk yëpp ñoo ko sàcc xoolal palaas yi ay xar. magasin yoo xay na nii li fi nekk juróom fukki gaas nga nga jël lépp nga jël lépp. ñetti camion jël jël gaz yi yëpp yóbbu dara amul. Macky Sall tey jii ay wax nag nu dimbali ngir yàlla waxaale ci dimbali ay néew doole lan de. yërëm nu yërëm nu te yàlla tax dañuy fal maire bi ñoo ci tax parce que ñeenti téeméeri nit ak nangam wateel nan meer bi fii te maire bi te waslu ci àq def ci sunu moo waslu ci ñeenti téeméer juróom-ñaar fukk man ñi doon coordonné ñiy watee ci laa kon ñi ko fal ci lan waaye njiitu réew mi la ñuy waxal dimbali nu ngir yàlla nga bañ a toroxal sa njaboot ni Amadou Sall. waaw def nu def nu ne Amadou Sall ak Marème fay Sall jigéen ñi nga def leen comme Marème fay Sall def nu Amadou Sall ay góor góorlu lan yoo xam ne duñ sàcc duñ fen wasalaam. jërëjëf.